mbokku téléspectateur YouTube Mbiss TV yi ñu leen di nuyuwaat di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ci saa su ne kon nag euh, fii lu mu fi faral di am rek ci saa su su fi événement amee yaakaar naa ne dara du leen échappé lépp loo xam ne rek war na ci bis bi rek dañ ci ànd ak le roi médecine traditionnelle du monde mi ngi noonu le roi des rois. the king all the kings nu ñu amee habitude di ko wax mi ngi noonu ci suba ziar bu mag bi nga xam ne ne moom la ñuy am muy ziar bi nga xam ne mooy ziar Moule Moule ñu ànd ceeg la xalif général des mule Moule muy taalibe Thierno Moule saw yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Gambia ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk international am ñu nekk tamit national ñoom ñoo fi ñëw tamit di préparer li nga xam ne moom mooy ziar bu mag bi macha allah mi ngi noonu kon nag euh, la marabu. mi ngi noonu doog a wàcc le roi de la médecine traditionnelle du monde daal di defati tamit bul tey bëlam bu baax bula baxaa bëla seel bu baax macha allah ku ne xam ne ne bëla yëfam la gis ngeen mi ngi noonu jàmbaar jaa ngi noonu di ñëw macha allah daal di débloqué presque 3 millions te xam naa ne pareegul mi ngi noonu jàmbaar jaa ngi noonu le of the king le maréchal le brodé de moom mi ngi noonu macha allah ki nga xam ne ne moom mooy jàmbaar ki nga xam ne moom moom marqué ay empreinte am ci li nga xam ne moom mooy médecine traditionnelle ba tax na àdduna wërngal këpp ñëpp jox ko bopp macha allah boo nee Europe ñu d'accord nga dem Asie ñu d'accord nga dem Arabia ñu d'accord waxuma naag waa diaspora nag nga xam ne ne macha allah chaque jour muy jëflanteeg ñoom ci baatin gis ñu barki dem boo Ndiaye ki ñu mel ne Aïssata Anne macha allah mu daal di nekk li nga xam ne ne moom mooy française grâce à kan teeru Thierno Moule saw kon nag mu ngi noonu gis ngeen nag ñu daal di ñëw fii nag tey ci guddi gi daal di euh, euh, pour euh, nag bi nga xam ne moom moo fi nekk lépp nag ci xéwal yu fi nar a nekk rek li yëpp pour jël pour añ rek ndax jaamu yàlla yi nga xam ne fu nekk dañuy joge ci adduna bi di ñëw macha allah ku ci mel ne Gambien yi macha allah nga xam ne ay taalibeem lañu te gis ngeen Gambien yi ni ñuy faralee di ñëw bi ci kër gi kon nag mi ngi noonu jaaraama l'empereur ñu ngi ci 3 heures du matin 3 heures 25 tey gis ngeen ko ñu ànd ceeg Mansour ki nga xam ne na moom mooy jàmbaaru l'islam mi ngi noonu jàmbaar jaa ngi noonu les frères rouges qui détectent les mauvais esprits mi ngi noonu nag ah Thierno Moule Sow le mara bien préparé sponsorisé par Allah il est protégé par Allah il travaille par Allah il fait tout dans la vie par Allah kon nag mi ngi noonu gis ngeen ko mu daal di ñëw ànd ak ñi nga xam ne ne ñoom ñooy boucher yi nuñ koy faralee di ko defee rek fi gis ngeen ko nag baa ngi noonu macha allah ñu koy defar lépp nag jëm nag ci li nga xam ne moom mooy teranga nga xam ne ne moom moo war a am suba ci li nga xam ne moom mooy ziar ay taalibe Thierno Moule Sow yu dajaloo bokk ndey bokk baay daal di ñëw jébbalu ci Thierno Moule Sow ne ko ginnaaw yàlla yow la yow la ñu dénku seen bopp suñu bopp adduna ak àllaaxira kon nag mi ngi noonu jàmbaar jaa ngi noonu roi de la médecine traditionnelle du monde sëriñ bi kon nag ñu ngi lay nuyuwaat di la ziar di la jox sa wàccuwaay ci saa ne ginnaaw bu ñu gisee préparation yi boobu ba tey ñu ngi ci marché yi fu nekk di fa nekk ba tey nag ñu ne mooy guddi li nga xam ne ne suba moom mooy ziar bi taalibe yi nga xam ne fu nekk la jógee ci àdduna bi tey lan nga yëg bi. waaw macha allah alhamdulilah rabbil alamin aouzu billahi min ashaytaani rajim wala xawla wala quwata illa billah alay azim gannaaw ba ñu sante yàlla ñoo ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu mbokku jullit yi di nuyu mbokku taalibe yi vraiment dañoo am mbégte lool soxna Ngoone Ja ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu équipe bi yëpp vraiment macha allah. ñoo ngi nuyu liet na Diop macha allah di nuyu Amadou macha allah di nuyu Kara macha allah di nuyu Alseeni Silla Mule ñoo ngi nuyu macha allah ma Diop di nuyu ñëpp vraiment macha allah gis ngeen boobu ba tey yéen a ngi ci waar bi di préparé wu vraiment taalibe yi xam naa ne ñoo ngi ci yoon bi vraiment ziar bi suba la tey nag macha allah guddi gi la ñuy préparé defar nag yi nga xamante ne suba bu ñu xëyee day fekk lépp mat. ñu nekk ci waar bi macha allah kër ga fee aussi ñoo ngi préparé traiteur bi aussi moo ngi préparé sant yàlla rek am mbégte bu baax julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa xam ngeen ne nag suba moom bis bu mag la bis bi nga xamante ne taalibe yëpp ñooy ñëw vraiment joge Europe ñiy jóge vraiment Angleterre ñiy jóge France ñiy jóge Gambie partout dans le monde ñoom Mouhamed Ngom Kurtu Karta gis naa leen fi léegi léegi macha allah taalibe yaa ngi jóge fu ne ñii jóge nañ Casamance ñii ñoo ngi ci yoon bi. macha allah di waajal suba nag suba bis bu rëy la bis la bi nga xamante ne macha allah duwaa jaabi bi suba lay génn macha allah ñaanu xaas bi képp ki nga xamante ne ñëw na fi ci kattan suñu borom yàlla dana faj sa aajo yàlla dana defar aajo yi defe naa ne chaque ziar bu nit ñi ñëwee ba ñibbi dañuy nettaliwaat gis ngeeneel gis yokkute gis ubbeeku rawatina nag suba macha allah jinne yaa ngi waajal ñëpp xam ngeen ne ziar bi nag du nit ñi kese jinne aussi dañuy ñëw ziar. kon nag vraiment soxna Ngoone kontaan nañ bu baax euh, vraiment ñoom soxna Oumy Ndoye macha allah ñoom Ndeye Marème gis naa leen yéen a ngi ci affaire yi yéen a ngi ci organisation bi vraiment di dem ci marché yi alseen yi yéen a ngi daw jóob vraiment euh, yaat ma macha allah dañuy sant suñu borom rek di nuyu madame Sow la reine vraiment moom it ngi ci waajal bu baax baax moo ngi waajal bés bi ak prince Moulé vraiment di sant yàlla bu baax di nuyu ñëpp euh, ajaratu Mariama Camara aussi soxna euh, ajaratu nday seex aussi bu ñu limee dañuy juum suba daal macha allah aajo yi dana fajuwaat mbir yi dana gën a yaatu waa association nationale ñoo ngi waajal ñoom Alseeni président Alseeni Silla ñoo ngi préparé ay ziar yu am solo préparé ay cadeau yu am solo waa international aussi kenn demul ñu des ñoom Ousmane Sam Sam Ruusi tonton So bu ñu limee dañuy juum ñoom it ñoo ngi waajal bu baax a baax suba ndax xam nañ seen sëriñ li ko yàlla jox xam nañ seen sëriñ li ko yàlla defal xam nañ seen sëriñ baatin bi ko yàlla jox jinne yi nangul nañ ko kilifa diine yi kilifa aada yi nangul nañ ma macha allah li ma yàlla jox suba nag macha allahu képp ku fa ñëw sa aaju na faju ci kattan suñu borom dama ñëw nag fekkee pour ñu préparer affaire yi gis nañ aussi macha allah suñu boucher yi ñoom baara vraiment ñoo ngi jéggalu ci yàggaay bi xam nga activité yi noonu la mbiru sëriñ bi du tuuti noonu la ñoom it vraiment lépp lu xew ci kër gi nag yeeg yooyu joob daf leen di woo ñu ñëw defar ko jël seen temps ñoom ngi leen di ñaanal bu baax a baax defe naa ne ñoo ngi yokku ak baay mbay ndax nag mu Moule booy ànd ak moom da ngay yokku yàlla na yàlla gën a xeb dolli di ñaanal ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm macha allah. ñaari programme waaw la ñaari programme la soxna ngoone ja parce que boo xoolee ne euh, fii nag la ñu rey fee ay xara ngi foofu di xaar ak ay ginaar ak yooyu defe naa ne euh, Alseyni jox naa ko responsable bi yëpp boobu ba tey toogu leen yéen a ngi daw di xool nu mu gën a baaxee jënd jënd ngeen lépp macha allah Thierno Moule li ma yàlla defal dafa rëy dégg nga géej gi nu mu yëngoo actuellement parce que instant yi jinne yëpp ay yëngu xam nañ ne kii lu ko yàlla defal defal ko kenn ci kaw suuf macha allah moo tax sama bis du tuuti sama bis dafay rëy macha allah jinne dañu koy màggal doomu aadama yi dañu koy màggal. macha allah moo tax du tuuti euh, comme ni nga ko waxee euh, valeur de trois millions la ñu def parce que tey macha allah dara manqué wul lekk ak naan boo leen ñëwee lépp day mat ci kattan suñu borom ndax nag yàlla jox nañu sutura jox nañu barke jox nañu baatin ak xam-xam macha allah ñoo ngi sant suñu borom moo tax suñu taalibe yi jógee Gàmbi vraiment bu ñu ñëwee dinañ leen teral bu baax comme ni ñuy teralee buur vraiment ànd ak taalibe yëpp. kon nag ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi ndax suñu borom lim ma defal dafa rëy jàkkaarloog ay jinne yi nga xamante ne dañuy possédé dugg doomu aadama yi di leen def loolu bon di leen tuxloo di leen naan loo di leen njaaloloo vraiment nga jël ñooñu tuubal leen dugal leen ci diine l'islam loolu dafa rëy loolu actuellement amul fenn ci aduna bi kon yàlla bu la joxee teranga bu mel noonu saa su ne da koy sant suba dama koy sante suñu borom maanaam dañ ne dañu ñëw ziar ma man damay jël ziar bi sante ko suñu borom ngir lim ma defal macha allah xam naa ne nag euh, ma jox leen digal pour ñu daal di defar euh, kii bi Diop bismillah macha allah ñaanal ñëpp fasaaleel ñëpp ñaanal taalibe yi macha allah ñu ñëw ci jàmm ñibbi ci jàmm bépp taalibe mule mule foo nekk yàlla yokku la aar la sàmm la ci barki yonente bi salaa salaam yokk ba yëg su may taalibe su may am di jàmm su may soppe ñi ma bëgg ak ñëpp fasaale nañ leen vraiment macha allah. macha allah bisimilah waaw léegi nag jox nañ leen ñu ñu déglu. bu ko defee ci kanam nga interroger euh, président Alseni defe naa ne moom it ñàkkul am na lu mu mën a expliquer ak waajtaay bi ak yooyu. booba tey ñoom la ñu àndal macha allah gis ngeen bi sëriñ bi tamit macha allah daal di tontu question yi daal di joxe tamit li nga xam ne ne moom mooy ndigal ñu jox ko li nga xam ne moom mooy paaka bi mu daal di rend ànd ceeg suñu boucher yi nga xam ne ñoom ñooy faral bu événement amee dañuy ñëw ci kër gi macha allah kon nag mi ngi noonu ñuy tóoru euh, xéwal noonu kon nag euh, président Alseni si laa ñoo ziar ak sécurité yi nga xam ne ne ñoom ñooy faral di ànd ak euh, sëriñ bi ak ki nga xam ne mooy Kara Seck nekk ci caméra bi ñu ngi nuyu ñëpp ak suñu mbokk tamit moom Lamine macha allah ak ki nga xam ne mooy Mouhamed Ngom kurtu karta di Gambien jóge foofu ci Italie lépp ndax lan ziar bi nga xam ne ne suñu sëriñ bi moom lay def te boobu ba tey mi ngi génnee xaalis bu bëri presque bu ñu xoolee li nga xam ne moom lañ jot a génnee rek presque millions la te xam naa ne suñu sëriñ à tout moment dafay dem prolongation ñu daal di ñëwaat rek ànd sëriñ bi débloqué teg ko ci loxoom ñu ànd ak moom ci marché yi dem nañu fu ne daal jënd li nga xam ne ne ay toggul li wàllum lekk naan manger boire gi moom dama yaakaar ne ak kon nag président Alseyni Sylla ñu ngi lay nuyu yow tamit di la ziar di la jox sa wàccuwaay ci saa su ne ginnaaw yaay secrétaire gis tamit boobu ba tey ñu ngi ànd euh, nekk président li nga xam ne mooy association Daaru Laay bu Sénégal bëggoon naa xam tamit association Daaru bu Sénégal di teeru association Daaru Laay bu Gambie ak bi nga xam ne moom mooy international lañ koy préparer su ko defee ñu daag ñu ñëw ci li nga xam ne na mooy ndugg beeg wàccaay. waaw ah, macha allah soxna Ngoné maa ngi ne asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu yëpp ah, di jiitoo nuyoo bi ah, suñu wasila El Hadj surnomme le Sow roi de la médecine traditionnelle du monde le king of the king le maréchal borom allah muhammad borom baatu baatin borom kum fayakum borom sansi samaru si buuru jinnay macha allah di nuy madame Sow la reine di ko ziar di nuy prince Moulé di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér bu yaram macha allah di nuy association Thierno Moulé Family Darou la pour le développement et l'entraide euh, nationale macha allah di nuy association Thierno bu international di di ko dalee si président bi Ousmane Sam Samarou si boosi suuf di nuy association Sénégal bi Moulé macha allah euh, di leen ziar bu baax a baax macha allah. Euh, ñoom soxna Mariatu Maane euh, ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom euh, tonton Galasso Fabacar Sonko yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax macha allah ah vraiment a ah, macha allah di nuyu yëpp daal di nuyu aussi vraiment personel de la TMS TV ak ñi nga xamante dañu seetaane TMS TV yëpp bàyyi ma si kenn macha allah donc vraiment tey dama am kontaan ak mbégte si teewaay bi fii tey. ndax vraiment taalibe yi nga xamante dañoo mobiliser mànkoo nekk mànkoo nekk benn ànd euh, bokk ndey ak baay macha allah di nekk si ginnaaw El Hadj Thierno Moule Sow di liggéey yàlla ak yeneen bi donc ñoo ñoo mobiliser te mu ne dañuy ñëw ziare sëriñ bi macha allah. Euh, taalibe yi noonu dañoo nekk partout dans le monde am na ñi nga xamante dañoo nekk dimension internationale euh, bu nga xamante Ousmane moo leen jiite. ñoom tam seen délégation yi ñëw nañ macha allah partout si côté yëpp ñu ngi wàcc macha allah instant ni donc association bu Sénégal bi mu lee aussi euh, macha allah ñoom tam ñu ngi si yoon bi xam naa ne si fajar bi fii la ñu yegg si incha allah donc association bu Sénégal aussi ñoom tam takku nañ boobu dëgër waaw kenn du des macha allah am na ñi nga xamante dañoo jógee sous région yi. si réseau yi ñoom tam yegg si nañ fi macha allah ñi nga xamante ñu ngi ci biir Dakar fi ñoom yëpp dinañ wàcc fi suba incha allah ak ànd jàmm yëpp soppe yi macha allah donc ñu fas yéene ziare suñu sëriñ bi ndax suñu sëriñ bi moom macha allah jar na lu ne ndax vraiment mission bu ko yàlla jokk macha allah mu ngi koy motal bu baax mu ngi jàppale jaam si jaay ak baatim macha allah vraiment loolu nekk di kontaan ak mbégte macha allah. donc si loolu noonu sëriñ bi vraiment jël na mutuwaayam ba mu mut sekk sëriñ bi xam ngeen ne vraiment dafa yëg banu aadama rawatina ñu taalibe yi nga xamante dañoo bokk si moom macha allah si famille bi si daarulaay bi macha allah débloqué na xaalis lu bëree bëri macha allah. soo xoolee reer bi kese kese huit cent quatre-vingt-cinq mille boobu débloqué na ko pour reer kese loolu li nga xamante bokkul ak añ bi macha allah añ bi aussi gis ngeen ne vraiment nag bi ñuy rey nii eh, boobu lañ toog añ incha allah. donc fas yéene euh, teral taalibe yi macha allah ñu yëpp taalibe yi fii la ñu daje si clinique bi fii su ko defee su ñu demee boo añ macha allah ñu yëpp ñu jël ay ay biche macha allah ñu ànd si dem si le général macha allah dem ziar suñu sëriñ bi donc euh, bàyyi ñu si kenn noom macha allah di ko sant bu baax a baax di ko gërëm waaw di ko ñaanal jàmm macha allah ñi nga xamante ñoo nekk si yoon bi ñaan yàlla si borom yàlla yàlla ñu jóge foofu si jàmm ñu yegg si jàmm si barke yàlla ak yeneen bi ak ñett Thierno Moule Soye macha allah sëriñ bi financé na xaalis lu bare plus de 3 millions macha allah vraiment financé ko bis bi macha allah rawatina noonu taalibe aussi vraiment ñoom tam préparé nañ seen bopp bu baax a baax ndax kuy ñëw ziar sëriñ am macha allah da nga bu baax nga ñëw indi adja donc loolu donc vraiment ñu tam ñu si préparé bu baax a baax macha allah. defe naa ne tey dem ngeen marché. dem nañu marché loolu laa la bëggoon depuis barki démb sax lañ ko commencé. Ah. daal di dem Orca daal di koy jënd daal di koy indi jébbal ki nga xam ne mooy alaaji Thierno Moule Sow boobu ba tey nag yaa ngi yor budget bi yooyu itam dafa euh, bi yi ngeen xam ne ne yéen waa association Daaru Laay bu Sénégal ci ngeen commencé parce que dem ngeen euh, orca ñoo àndoon jënd salon boo xam ne salon bu mucc ayib salon bu cher macha allah salon boo xam ne ne bu luxe macha allah xam naa salon bi ñu ko jëndee 900 xaw ma 1 million loolu loolu yëpp tamit macha allah ñu détaillé ko ak ndugg yeeg programme yi léegi la ñu mujjee sax daal di jógee Auchan pour xool nag yeneen yi nga xam xam ne ne moom moo yu sew sawaan yeeg ñoom waaw macha allah soxna Ngoné vraiment loolu moom euh, suñu ne dañuy ñëw ziar suñu sëriñ bi vraiment dañuy takk ba mu dëgër ñoo xam ne suñu sëriñ bi macha allah duñ ko defal lu mu amul mais ñun taalibe aussi vraiment ñu yëpp dañoo mobiliser man koo nekk benn vraiment ànd si ginnaawam si loolu nag macha allah ku nekk vraiment day teg li nga xamante mooy adiya yi ñu war a indi si sëriñ bi macha allah loolu lañ dajale association nationale donc parler de deux millions loolu dañ koy préparer am naa un million bi moom dañ koy jënd ay matériel jàpp si aussi si affaire toog yi macha allah vraiment ñu si toog bi am naa ne un million bi boobu lañ jébale sëriñ bi incha allah ak adiya yi nga xamante vraiment taalibe ku nekk dafa yor si lokam loolu tam soo ko calculer valeur de un million la macha allah kon day nekk trois millions ko loolu macha allah vraiment ñun tam ñu ngi si préparé bu baax a baax macha allah waa international aussi xam naa ne kenn dem ñu des macha allah ñoom tam macha allah dañu préparé bu baax a baax macha allah Sénégal bi aussi c'est la première fois ñu ñëw ziar sëriñ bi ñoom tam xam naa ne vraiment donc ñoom tam préparé nañ ko bu baax a baax macha allah vraiment loolu kontaan ak mbett la gis nga ne vraiment depuis barki démb ñu ngi daw te ñëw dem nañ marché dem nañ océan dem nañ partout si li nga xamante vraiment ket baak baak yi ñu ngi si macha allah ñu ngi si dem di génn di indi. macha allah def naa ne yëpp dinañ teg seen bët incha allah donc débloqué nañ xaalis bu bare bare nga soog na ngoone ñu ngi ànd tooguñu boo léegi nam paraguñu. waaw waa association Sénégal takk nañ boom dëgër macha allah takk nañ boom dëgër kenn du des. waaw waaw du des macha allah si réseau si suu réseau yi eh, ak ñi nga xamante dañoo nekkee ci biir Dakar fii ñoom yëpp dinañ si ñëw incha allah ñu nekk sous si réseau yi sax ñoom commencé nañu wàcc xam naa ne suba moom fii moom day fees del del avec Alaaji Thierno Moule moom tout est possible quoi incha allah. Hmm. macha allah président kon nag euh, kaddu yi rafet na ñu daal di am tamit ñeneen ñi nga xam ne ne ay taalibe lañu ñoom tamit daal di ñëw jóge ci Gambia keneen ki di Mouhamed Ngom. daal di ah, jóge ba li nga xam ne moom mooy Italie macha allah kii nag mooy Lamine. Hmm. Lamine yow tamit ñu ngi lay nuyu di la ziar nga présenté sa bopp waa TMS TV kon yow tamit yaa ngi ñëw nga bokk Gambia nekk taalibe sëriñ bi daal di ñëw ban yëg-yëg nga am événement bu toll nii muy ziar. bu fekk la tey sa kër sëriñ ban yëg-yëg nga am awsimlahi mina seytaan rajim bisimilahi rahman rahim maa ngi nuyu suñ sëriñ bi Thierno Moule Sow the king of the king le roi traditionnel du monde bu ma jógee eh, Gambie ba fii kontante rek mm. waaw kontante la am parce que kontaan na trop bu ma ñëwee ba gisante sama sëriñ bi muy def événement événement ziar ziar bu am doole ni ba nga xam ne mosuma koo fekkee te bii mooy sama première fois pour ma giseen temps moom pour ma jógee Gambie bay fii ay dam daan toppa vidéo am yi trop lu mut ay ñetti at si gannaaw waaw nu moo fajee ak nu moo dimbalee doomi aadama yi dama kontaan si trop waaw kontaan naa trop loolu moo tax loolu moo ma yëkkati depuis Gambie ba fii ma ñëw giseen temps moom ma ñëw fekkee ziaram bi waaw kontaan naa trop maa ngi koy nuyu bu baax yal na ko yàlla yokkal dooleem bi ba si amiin amiin. <laughs> macha allah mi ngi noonu jërëjëf ñu daal di am nag beneen talibe bi nga xam ne moom tamit dafa jógee foofu ci international bokk association Daaru Laay bu international bi nga xam ne ne Ousmane Samti Samaru si moom moo ko jiite moom tamit ñu daal lay nuyu bu baax a baax jóge ci Italia macha allah mu bokk tamit nekk suñu doomu Gambien comme ni ñu koy waxee ci saa su ne Gambie ak Sénégal ñoo bokk nday bokk baay xàcc seek door ci la euh, kon nag Mouhamed Ngom kurtu karta dañ koy woowee ci saa su ne kon Mouhamed ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax ban yëg-yëg nga am nga daal di ñëw fekkee li nga xam ne moom mooy ziar ziar bi nga xam ne mooy suñu ziaru sëriñ macha allah Thierno Moule Sow lan nga yëg aousubillahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim maa ngi nuyu suñu sëriñ macha allah di nuyu mbokki taalibe yëpp donc di leen sant di leen gërëm tey moom dama am kontaan te ngoone ndax euh, ziar yu fi jot a romb yëpp si vidéo lañ ko fekkee si vidéo lañ ko xoolaan mais tey moom dañ koo fekkee macha allah donc ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax santale ko bés bi macha allah di ko di représenté euh, Daaru Laahi international bi yëpp macha allah tey moom maa fi nekk Mouhamed Ngom kurtukat donc am nañ kontaan bu baax a baax si fekkee jour bi ngoo nañ jour bi dafa am importance si Gambien macha allah. d'accord kon euh, Mouhamed kon c'est la première fois nga daal di ñëw fekkee li nga xam ne ne moom mooy ziar ñu gis tamit am ay taalibe Gambia yi nga xam ne dañoo dëkk kenn euh, mu la saw seen bopp mu am ñi nga xam ne dafa jëflanteeg ñoom ci wàllum baatin ñu possédé woon ay jinne ay rab ay dëmm mu dindi loolu yëpp ba mu set ñoo ñu créer li nga xam ne ne sëriñ bi dañ lay ubbil association ñu créé ñoom ñëpp bokk ndey bokk baay te association boobu gëm naa ne sa loxo mi ngi ci biir parce que association yu mag yi ñoom ñooy teete association yu ndaw yi biir association bu ak félicitations seeni wàccaay yow tamit nga daal di jóge Gambia. macha allah kontaante rek ak mbégte ngóone mm-hmm. ndax se soo soo sëriñ bi nii sëriñ bi euh, yàlla la fi nekkal si jaam yi mm-hmm. donc nit ñi jaaxle neen fu ne mm-hmm. tawat neen fu ne amuñu fu ñu ko fajo mais bu ñu déggee Thierno Moule Sow ñëpp daw si fii donc moom mi ngi dimbalee doomi aadama yi si jaam yi donc moom tamit mënut am euh, euh, lu mu am nii macha allah bés bu mag la si moom nga dem sa taalibe di jógee si dëkk ak dëkk di la ñoo ziar macha ñun tamit dañ ci am kontaan moo tax ñu ne faw ñu teew man tam moom. bés bi moom du ma raw. du ma raw billaay macha allah. <laughs> macha allah kon nag euh, kontaan nañu bu baax daal di am mbégte gis ngeen ñi nga xam ne ne ñooy suñuy mbokku pla euh, suñuy mbokku gambien ñu sekk ak ñoom tey tamit li nga xam ne ne moom mooy plateau bi ci ginnaaw xalif général de jinne bi mu ñëwee daal di joxe ndigal ci li nga xam ne ne moom mooy nag bi ndax ni leen koy defee ci saa su xew bu fi am dafay débloqué ay millions ndax lan ndax jaamu yàlla ndax lan fonk ay taalibeem bëgg leen te yàlla tax kon nag mi ngi noonu le roi médecine traditionnelle général des Moule Moule kon nag mi nag baa ngi noonu gis ngeen ñu di ko defar lépp nag ci kanamu Alaaji Thierno Moule Sow ki nga xam ne ne dafa liggéeyal borom bi ci liggéeyal la nekk ci saa su ne lan euh, liggéeyal sa borom weesuwul li nga xam ne mooy jinne yi dugg ci yaramu doomu aadama nga leen di rocci di leen duma di leen daat di leen dugal ci diine l'islam loolu rek yaakaar naa ne weesuwul li nga xam ne ne moom mooy jixaat gis nañ bu baax li muy jëflanteeg doomu aadama yi baat na këpp association bi ñi nga xam ne da leen a faj ku ci mel ne man macha allah bi mu fajee sama doom ci laa euh, xam ne ne carrément kii nitu yalla la ndax tubaarikàlla macha allah ku mel na man nga xam ne yàgg nañ jaaru xam nañ ànd yu boy yeeg yu boyu li macha allah ba mu roccee jinne yi nekkoon ci sama doom laa xam ne nag kon nag waajaa ngi nii moom ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne toujours dafa lay jëflanteeg ñoom ci saa su kon nag mi ngi noonu jàmbaar jaa ngi noonu le xalif général des Moule Moule kon yaakaar naa ne bu suba jotee macha allah dina metti dina yàgg macha allah yuuxu dina jub fu kenn foogeewul bu ñu jàkkaarloog suñu waa ji borom faajuru naajuru ajuma bente ne les frères rouges qui détectent les mauvais esprits ki nga xam ne ne mooy ndawu l'islam ki nga xam ne mooy jàpp jinne yu mag yi nga xam ne ñoom ñooy dugg ci yaramu doomu aadama mu duma leen daan leen dugal leen ci diine l'islam ñu ci mel ne première ambassade Iblis moo ko wàccee deuxième moo ko wàccee troisième ñoo ko wàccee jinne bi ñu naan kabla kabla moo ko wàccee jinne bi ñu naan ceinture noire moo ko wàccee jinne bi ñu naan Casamance moo ko wàccee et Jean sama waa ji yaa ko wàccee tubaarikàlla macha allah jinne ceinture noire yi macha allah jinne bi tudd Ablaye Wade jinne bi nga xam ne moom mooy kabla kabla yaakaar naa ne jinne yu baree bari buñ fi nekkee di lim fii la ñuy fanaan jinne mu jinne Moussa yi kànk Moussa yi jinne yi nga xam ne chaque jour moo doon sonal doomu aadama yi kon nag yaakaar nañ ne suñu waa ji kenn du moom macha allah euh, li ci des nag nga xam ne dafa marqué ñi nga xam ne mooy sénégalais ak monde entier keroog ba ma ko waxee Casamance ñëpp a seen gémiñ macha allah muy kan jinne bu mag bi nga xam ne mooy le roi xaaxaa jinne bi am 100000 combats zéro défaite jinne bi daaneel bato la Joola moo tax ma naan ko ni bato bi réyee ni bato bi diisee arab yaa ngi ci biir nit ñu weex ñaa ngi ci biir nit ñu arab yeeg joolaa ye xeet bu ne ñu ngi ci biir sama waa kon bato bi lu mu diis diis yaa a diis kon nag jàmbaar jaa ngi noonu king of the king ki nga xam ne ne macha allah lii àdduna wërngal këpp moom rek moo ko am mara bu traditionnel boo xam ne da nga am say taalibe monde entier nga leen di jëflanteeg ñoom ci baatin ci saa sunu ñuy gis li nga leen di ñaanal di gis li leen ni defal kon nag jaaraama suñu waa ji macha allah di ziar madame Sow la reine macha allah mi ngi noonu la reine de Thierno Moule Sow mi ngi waaj moom tamit takku na ba dëgër ànd ceeg presse Moule macha allah suñu mama ñi nga xam ne ne ma suñu mama yëpp macha allah gore yeeg ñoom ñëpp ñoom suñu nijaay jaa ñoom ñëpp nag takku nañu ba dëgër ndax nga xam ne ne macha allah daf cat sama xaale xëy na bu ñu ñëwee dinañ xam ne ñëw nañu la euh, grande dame la grande diva bële paase gis nañ ñu li mu def ci ziar bi da koo ruq ba mu nooy wàccee ay terangaam yu riis daal di jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy borom këram dafa joxe ba joxe parfum yi ñuy parfum wee jinnay kon nag jaaraama madame saw la reine macha allah kon nag bu subaa jàmm bu ñu paree fii ci clinique bi madame Sow la ñuy fekk ci këram te ku fekk ci jeeg fekk ci grande di ngeen fekk ay kalma ñaangaanam ndax madame Sow ku ne xam ne nag jeu du la du laa macha allah suñu jeeg bu pare boobu macha allah la reine kon nag ñu koy nuyuwaat di ko ziar bu baax a baax naan ko ñu ngi lay xaar macha allah bu la passé ma la jox xeetu baax baaxam te xam naa ne madame Sow bu ñëwaatee tamit dina metti dina yàgg kon nag ziar lañ wax mule mule kon nag mule mule yi tamit macha allah boobu ba tey waa international yi ku nekk ngi tëmbal sa yóbbante ah jàpp takku naa ba dëgër boo rek bu junj bi rëkkee nee naa leen ba lamb bi tàkk ba suñu waa ji toog ah surprise dina génn de. xale yi takku nañu ba dëgër macha allah yu riis yi dinañ génn yu baax yi dinañ génn CFA dina génn euro dina génn dollar dina génn kon nag nañ teg foofu suñu loxo macha allah ñu daal di jublu ci li nga xam ne ne moom mooy euh, fees bi kon mi ngi noonu gis ngeen noonu ñu ngi noonu ci fees bi di ñëw sëriñ bi di yomb de du ndax maram saw laa ren na ba dëgër. waa Sébi aussi ñëw nañ euh, macha allah suma goro bàjjen Aïda Dia ñëw na def na déplacement ñëw na ndeysaan tey la egsi ñoom it ñoo ngi waaj suba bu baax suma goro yi maa ngi leen di nuy ñoom it ñoo ngi waaj suba incha allahu di nuyu aussi suma goro soxna ummi vraiment di ko nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm suba daal vraiment du yomb ndax nag xam ngeen suba suba macha allahu bis suba bi am na wali yuy ñëw duñu surprise nag euh, maanaam macha allah duwaa jaabi xam nga man sama bis moom ñu bëri dinañ ñëw euh, ñii ñi duñu xam xam nga bisu Thierno Moule Sow euh, nitu yàlla yi bëri dinañ ñëw jinne yu bëri da ngay gis dañuy ñëw macha allah kon nag bis bi euh, raté ko wóorul ñàkk ko fekkee erreur la ndax bis bisu ngëneel la bis la bi nga xamante ne macha allah maanaam bu la fa fekkee nga xool naka la da ngay gis yokkute ubbeeku macha allah jafe-jafe yu bëri day dañ kon nag ñoo ngi koy waaj suba vraiment guddi na gis nga gaayaa ngi ci affaire yi. maa ngi sant équipe bi yëpp équipe TMS TMS maa ngi sant ñëpp vraiment ñoo ngi waaj bu baax a baax Kara moom moo géré équipe bi ñoom ñoo ngi waaj wax naa leen ñu préparé bu ñu bàyyi dara bu ñu bàyyi dara macha allah wax naa ko ko mu ñoom it ñoo ngi préparé bu baax defe naa ne euh, euh, euh, association national président Alseni Sylla aussi ak yéen yéen a ngi waaj ngoone macha allah yéen a ngi waaj bu baax a baax waa international aussi ñoo ngi waaj maanaam suba daal surprise dina am. te macha allah daal euh, suba macha allah waaw du yomb macha allah dana mel ne su ko nam koole bi ci Banjul sécurité yi tamit waaj nañu. champion Konaté macha allah ñoom lier naa Diop euh, ñoom chef de secrétariat moom mu le macha allah ñoom Amadou Garra procès sama gars yi su limee damay juum ñoom ñëpp ñoom Cheikh ñëpp suba ñoo ngi waaj vraiment macha allah. kon nag macha allah gis ngeen ni mu ko sëriñ sëriñ bi waxee kon nag yaakaar naa ne bi yëpp kon takku nañu ba dëgër kon ñoom ñëpp waaj nañu kon li nga xam ne moom mooy ziar bi madame Sow laa dafa waaj ànd ceeg ay bàjjanam ànd ceeg ay tantam ànd ceeg ay mbokkam macha allah euh, kon nag suba du yomb macha allah waaye nag waa international takku nañu waa Sénégal waa national ñëpp takku nañu macha allah boobu ba tey ñu ngi waaj di def seen ci saa su ndax lan kilifa gii ndax kan mooy nitu yàlla du ma ko ne sëriñ ndax nitu yàlla ak sëriñ safe de ndax kii waali waali yaabe la macha allah kii Soundiata Keita mooy maamam waaye segaloo mooy maamam macha allah waaye doon na nag nit ñu baax ñi nga xam ne ñëpp ñoo fi nekkoon li koy wax ci saa su ne doon nga Seydina ci Mouhamed macha allah ba ndax Seydina Mouhamed kenn mënut a mel ne moom waaye ngi góorgóorlu ba fépp rek fu woon tànk kam rek da ko fay tegaat ndax bëgg ak cofeel bi nga xam ne ne moom la am ci moom macha allah waaye doon na ki nga xam ne ne nag mooy yonent yàlla Moussa ci bantu jaan ba doon na ki nga xam ne mooy yonent yàlla Youssoufa ci taar ba mi ngi noonu c'est le meilleur marabout de sa génération kon nag mi ngi noonu Thierno Moule Sow lañ koy waxee les frères rouges qui détectent les mauvais esprits kon nag ñu daal di teg foofu suñu loxo ñëwaat ci kanam gisee ca dëgg-dëgg war naa ñoo gisee koney Sénégal war naa ñoo gisee doomu ndey am nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh Khalif général Thierno Moule Sow Soundiata Keita